المرسل بخطي المعسل وسانني عن كزلي بالمهر عن كدري فرها خير المرسل بخطي المعسل وسانني الكسل بالنحي عن كديري يخرج لي خير رسول من الجميل خير رسول ولا يسوق للخيسير مجري الحدا والحدير رفعت كل يسير مقتربا أي سهم قبل وبك فاس سوتيخات ولم يكن بمسرك لم يخفى عند المؤمنين كونك بل مسهين يا أم خير لمحسنين معصومة من سركي يقودني لمتيك معك فضلا قد هك فزت ببشر مدرك كل تخيم مدرك وجعلتك اليوم بما يديم لي قوتا بما إلحتي وإيس بما من غير خاص الدارك mu doon royteef ci sama bokki taalibe yëpp ñu jàng ci bind bu bees mooy loo fonk fonk alxuraan bu mu tax nga sàggane xasida yi loo fonk-fonk xasida yi bu mu tax nga sàgg na alxuraan. kay moom mii am kaang la jàng alxuraan ba mokkal ko di jàngale. bay jàngal ay doomu jigéen. ba doomu jigéen mën a gañe prix bii. ci ñi dàq bind ci senegal waaye dégg li mu jàng ci xasida ak ni mu ko jànge benn baat yàqu ko te daaj ba daaj daaj daaj yéen kër sëñ Massamba wëcc xam naa daaj. li tax man la boo too boo doon ci kanam suñ tubaab nga ko jàng di soppi dara. na ko waa kër sëñ Massamba doon daaj nga ko daaj. te yàqoo ci yàqoo ci mbind mi dara loolu nag murit bu ne daa war a fexe ba ne foofu fonk alxuraan lool ngir sëñ bi waaye fonk xasida lool ngir sëñ bi ba lu ci ne du yàqu morom ma bul mooy ci alxuraan ba tax nga sàggane xasida waaye bul mooy ci xasida yi ba tax sàggane alxuraan lu mu néew néew li kii nag royteef la ci loolu mu ne ko murit yëpp bàyyi xel lu mu la loolu laa ci doon waaw alhamdulilah xanaa di sant suñu borom rek. bisimilah. Euh, ko sëriñ bi waxee léegi. waaw sëriñ bi wax na waxtaan wu am solo sax woo xam ne. jotuñu koo jël ci nattu suñu borom yi nga xam ne. daanaka man nga ne jom yàlla jombali ko kenn. ndax lu yàlla nattoo ab yonant jullit bu ci jël sa cër rek muñ moo ciy warteef te kaso suñ borom nattoo na ko Seydina Yusufa sëñ bi wax na ko léegi ak ci Tuuba jëm jaaram yëpp ñoom ñi nga xam ne dañoo nekk ci daal bi ci yëngu mhm. nattu ak seen kaw mhm. yàlla dogal sëriñ bi bokk ci ñi nga xam ne <coughs> lépp lu yëngu ci daara xel yëpp daja ndoo ko mhm. lu laal daara itam yitteem jëpp mu def ko ci ndax niiwaana ci ñooñee fa nekk ñoo xam ne yëg na seen biir ci njëlbeen lu dul ni ràppal na ci ay dàllam dox ci wax ci nu nu nu ñuy teewee nañ jataay yu bari yoo xam ne jataay intervention la jataay ñaan jataay nangam atuwaar kàllal léeg-léeg mbir war a diis lool te woyof te yëguñu la koy woyofal léeg-léeg mbir mbir war na gudd lool te gàtt te amaana du ñu yëg la ko gàttal te loolu lépp loxoom moo nekk ci biir waaye nag alhamdulilah ndax ñi ko war a xam ñooñu xam nañ waaye ku ne ci biiti nag mën ngaa bañ a yëg mën ngaa bañ a xam waaw waaye ñi xam ñoom te seq ko ak moom ñooñu xam nañu ko loolu nag lu ko mat a sant la te seere ko moom mii de boo ma woo ma damaa am yéene yi dem ziyaare ci Sëriñ Abdou Samad su ma demee santal ko sama bopp ndokkeelal ko sama bopp ndax coono yi nga xam ne daj na ko suñu mbir ak yéegu yi mu ci dox ak li taxawaay yi mu ci am lépp yëg naa ko te noonu ma ko yëgee sëñ daar yi ma nekkal ci barab bi ñëpp noonu lañ ko yëgee ah, kenn ku mu jotee ci sa mbir rek taxaw na ci lam ci man lépp mm-hmm. kon nag damaa bëgg ñu ànd dem santal ma ko dama jotee sëñ bi mu ne nga ñëwee ren la fekk waaw kon loolu moo doonoon jéego yi kon nag ku génn fi barab démb bàyyi te yëpp ñëw di sant si jëmm xam nga bu baax la tax nga ko sant waaw na daal lu war a na lu war a diis te woyof <laughs> retiré dañ fi plainte yu xam <laughs> waaw ay plainte yoo xam ne demoon na ba àkk moom mii moo taxaw ba ñu retiré plainte yooyu <laughs> kon nag euh, ku xamut li muy def day fekk ne xamoo rek li ñu bëgg nit ñi nag li ñu mooy lépp lu lu lu nit di def ñu yëgle ko ñëpp dégg ko waaye am na loo xam ne nag daaw doxee nag ci wàllu woowa waaw la la la ñëpp mën a dégg ñëpp danañ ko dégg ndax julli daa am yu nuy yeloo am yu nuy béral julli gu nuy béral boo ko yeloo yàq ko julli gu nuy yelu boo ko béralee yàqu kon am na lu ñuy lijjanti ci suuf loo xam ne ku ko béral mu yàqu loolu nag lu muy def ci suuf la rek waaye teewul ñi ko war a xam bu buñ ko weesoo nag mën nañ ko wax ndax lii dañ ko weesu door ko wax buñ ko weesu duñ ko wax waaw noo ngi lay ñaanal baax suñu borom yàggal la fi lool barkeb Sëriñ Tuubaa xam waaw waaw ok ñu ngi koy sagoo bu baax. loolu nag. moom bu waxee rek dana feeñ. bu waxee da ngeen xam ne kii mm, góoma na motal waaye itam lekk gañ fa ne teewul ñañ fa nekkal ña ngi liggéeyee lislaam ci ñoom ak sëriñ bi. bu bëgg nga leeral na fa nekkee ak ña nga fa nekkal ak ni ngeen fa nekkee. sëriñ bi ñoo ngi leen di bu baax di leen siyaare bu baax di siyaare ñuy wax di ko leeral ñu ngi koy leeral ci kàddoom ni mu ubbee wax jiir noonu noonu la wax noonu mooy wax ji ñu fa nekkee ña nga fa ña xam ne ni moo dogaloon am nattu yóbbu na fa ñu nekkoon ci daara ñu yóbbu ñu waaye ba nattu ba ñëwee ba ñu demee it dañoo xam ne dañoo delluwaat ci daara ndax waxtu bu yàlla dogalee ñu xëy am na fa ñoo xam ne ba ñu fay ñëw maanaam boo leen bindoon bisimilah mënuñu koo jàng te dañoo mujj dema dem ba xam ne saa yu ñu tasee kaamil bi ñu jàng alxames ak àjjuma dañ cay jàng waaw te sëriñ daara ya fa nekk ñoo bis yi nga xam ne mooy bisi sëriñ yi ak njabootu sëriñ saa yu ñëwee dañ koy dañ koy dundal ci jàng alxuraan ak jàng xasida ñi nga xam ne mënuñoo jàng ñu yor seen i di ko séddale di def ay salaatu ala nabi di ko jagleel borom bis boobu màggal gi nga xam ne moo moo moo jàll te suñu borom dogal mu fekk fa bi bi suñ mën taxaa santaane njàng mi ci njëlbéenu tamxar bi ca lañ tàmbali kaamil ya ba ba ba màggal gi jàll nga xam ne jàng nañ fi téeméeri kaamil ak yu ak yu topp nga xam ne ña fa nekk ñëpp ci ci loolu lañ nekkoon taxawaay bi nga xam ne sëriñ bi am na ko ci mooy taxawaay bi sëriñ bi wax maanaam biir mu ñëwee. ña fa nekk. li ma ñëwee sëriñ bi dama ñëw nga. Mm. Eh, ana ña fa nekk lay ñëw. Mm. incha allah gëm naa léegi léegi léegi. da ngeen dégg ne ña fa nekk ñëpp. ñëw nañ kon nag ñoo ngi mm. ñoo ah. ngi ñoo ngi seeral àdduna sëpp ne. sëriñ daara ña fa nekk. la ca ëpp. ñëpp ñëpp dañ leen a toog. waaw la cay firnde di xam ne ña nga fa. am na koo xam ne bi mu fa ñëwee. matagut ñetti weer. Ah, ñu koy wax xaadim toon bi mu nekkee fi ñuy wax quarantaine. ñu ngi fa def weer ak juróomi fan. bind na fa ab kaamil alxuraan ba mu egg yàlla dogalee mu dugg ba ci biir ba mu ñëwee la tàmbaliwaat beneen kaay ba ba fay jógee man la toll waxaal la seen laar jox la saa xëyee lu mu bind man la koy jox ba topp ko mm. naa mu maanaam sëriñ daara yi fa nekk ñu tooñ leen yóbbu mm. li ñu nekk woon fii ba nekkee foofu loolu loolu la fekk am na ñoo xam ne fii ni nii maanaam sëritu ku mel ne sëñ Mabou Guèye set bu baax. xam nga lu dul jàngale alxuraan waaye nag lu ma ko mën a tudd lu natt bi yoo xam ne. du ma dugg ci yoon waaye xam naa ko xam ne du tooñkat. waaw mën na yem. ñëbboon ko foofee ca kaso ba moog suñ daara yu bari. ci baaxul si ñun taxaw ak i taxawaayam nag laay wax. te mi ngi taxaw nii mu taxawee ba mu génn moom. ni taxawee te du ci waxante ca kaw. Hmm. day liggéey liggéey biir. liggéey biir boo xam ne lu ca man da koy def yëg leen taxawu leen te balaa bàyyi ñëpp génn. Hmm. firnde ji mooy moom mii mi ngi nii. Hmm. te noonu yi mu ko génne. ñu toppee ñëpp bañ génn ci biti. ndax boo xam.